Thioro Mbacké yow nga bokk ci ñu investi ci euh, liste wàllu ci département bu Mbacké ñi ngi ci jour scrutin bi tey organisation bi ak déroulement bi loolu ñu ci mën a wax waaw organisation bi déroulement bi moom ni ma ko waxee fépp laa koy wax rafetlu mu ko ndax jàpp naa ne mënoon gën a baax leen ndax mënuñoo xëy wër centre yi concernant nit di gañ dëkk biñ eggee quatre bureaux de vote yi fa gën a mag 10 fekk na ubbi loolu kenn mënu ko imaginer beneen bi ci topp kon yooyu bu amee manquement la yoo xamante ni mënuñoo indescec ñenn ñu dul autorité préfectorale yi fi nekk kon jàpp naa ne war nañ ko gën a mën a organiser baax mais leneen li nga xamante ni gën na maa ma di ko wax population bi nañ gën a vigilant gën a am détermination gën a engagement te moytu provocation yi ndax nit du am ndamam di ko yàq te ñii boo gisee li ñu def xam ne te nekk duñ ci campagne a ci organisation wax waa li may wax waa coalition jafe-jafe ci man pour ñu mën koo jàllale vraiment nañ comme campagne bi jeex na nañ wax ci organisation bi juste rek tey waaw Pape li may wax daal mooy waa coalition bi yëpp mooy nañ gën a bis gën a ànd ak dal <laughs> jërëjëf xam ne nit mënul am lan di ko yàq <laughs> jërëjëf sëñ <laughs>